asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dalee nag jàmm ci xibaar digg bëccëg gi li ci gën a fës mu bokk ci lu jëm ci Barthélemy Dias bi nga xam ne daje nag taskatu xabaar yi ni ki démb gannaaw ba ñu ko daal di ah, rajee fële ci assemblée nationale moom nag di ah, meerup Ndakaaru daal dina fësal waxtaanam jëm ci taskatu xabaar yi fësal fa ay kàddu eh, jëm ci radiation boobee ak lam ca nam mu def di ab recours bu mu fas yéene daal di ah, dugal dinañ ci ñëw keneen ku ko tontu di euh, Ngagne Demba ture ndax moom it euh, daal dina dajeek taskatu xabaar yi ba mu paree rek moom euh, Barthélémy Diaz moom Ngagne Demba Touré nag daal dina fësal ne daal jële bi ñu jële Barthélémy Diaz ci Assemblée nationale Euh, du lenn lu dul rek daal di euh, doxal yoon ndax nag moom bu ñu fàtte ne yoon da ko kon daal di euh, tegoon wala yoon da ko daal di daan gannaaw ba mu faatee ki nga xam te ni moom mooy Ndiaga Diouf loolee nag moom moo tax ba moom mi nga xam ne moom mooy Barthélémy Dias ñu daal di ko jëlee foofee ca kon assemblée nationale dinañ ci ñëw ci biir xibaar yi ñu wax nag ci euh, li nga xam ne moom moo jëm ci suñu mbell ñu faral nag di ko jëfandikoo jëm ci li nga xam ne moom moo di wàllum euh, tissu yi ñuy faral di jëfandikoo lépp lu jëm ci wàllum textile ñuy fasal ne daal nguur gi fas na yéene daal di dakkal lépp loo xam ne ni jóge na euh, ci exploitation jóge ci réew yi nga xam ne ni ñoom ñoo jóge tugal ñëw fii di jël suñu mbell yooyee nag di ko yóbbu seenum réew état du Sénégal nag nee nañu dinañu dakkal lépp loo xam ne ni lu jëm ci wàllu wi ñu jëm ci ay fan yu néew si lu ni mel ndax bëgg nañu nag ñi nga xam ne ñooy jo doomu réew mi lépp lu fi euh, meññante rek ñu daal di ko jëfandikoo te mu lew leen doom nañ ci ñëw ci biir xibaar yi kon mbokk yi lee fi gën a fës ñu yaatal ko léegi laata ñuy euh, daal di faram fàccee ponk yi ñu leen fi euh, wax sànq dañuy njëkkee rek ci euh, li nga xam ne moo di xibaar bi jëm ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne nag dafa fas dem fële ca fi nga xam ni moom mooy kon Nouakchott jóge na Dakar daal di dem Nouakchott ndax nag dafa fas yéene fekkee conférence de l'Union africaine sur l'éducation bi nga xam ne nag mooy am si talaata ji ñu nekk nii fële ca Nouakchott njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye nag di tontu invitation boo xam ne mu ngi jógee ci ñoom ñoom Mauritanie di Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani di mohitani, Mohitani nekkit président en exercice de l'union africaine leneen lu soxal xibaar doon nañ leen ko junj sànq moom mooy euh, lu jëm ci euh, mbirum Barthélemy Diaz gannaaw ba ñu ko dàqi assemblée nationale moom euh, meeru Dakar nag daal dina dajeek taskatu xabaar yi doon fa fësal lépp lu jëm ci dàq bi ñu ko dàq foofee ci assemblée nationale moom meeru nag nee mbir yi du ko bàyyi mu sedd ndax nag dina dugal ab recours clamé lu ni ngir daal di jotaat li nga xam ne moo di àq ak yelleefam bi ñu ko bëgg xañ lu jëm nag ci maire bi nga xam te ni moom la yor jamono ji nee na nag bougéwul mais te tey la fa gën a sax ñu teewlu ay kàddu kàddoom ak suñu naataango Jibril Ñaan ànd ak Pape ndax Gaye moom mi nag daal nay dëggal kàddu yi nga xamee ni yëkkati woon na ko ci ginnaaw génn ko àdduna ba Basirou jóob moom mi nga xamee ni dafa nekkoon nag ci loxo yoon fële ca diwaanu Ndar ni ki démb ginnaaw bi mu doon amal ak conférence de presse la daal di yëkkati ay kàddu ni kon moom daal génn àdduna ba daal dina indi ay lënt-lënt bu baax a baax ci boppam tey sàkku nag bu baax a baax ci nguur gi mu daal ci indi ay leeral.

moom naturel. ginnaaw bi mu jënoo ak taskatu xibaar yi Barthélemy Dias daal dinay tontu bu baax a baax ñi mu jàppe ne ay noonam lanu di leen wax nag bu nu réewee itam bu yeboo ñu bañ a kekku ginnaaw bi nga xamee ni wër na ko ni ña ngay bég loolu ci daan bi nga xamee ni yoon daf ko daal di daan di wax ne nag nguur gi lanu bëgg dëgg-dëgg mooy jëlee ko fii ci bopp bu mairie bu ndakaaru te loolee nag bu yeboo ñu xam ni du ko daal di nangu benn yoon du nangu benn yoon ñu di ko jaay doole ak xoqatal man mandat bi

te leen ko ci dëgg teg leen ko ci yoon. moom Dia Cissé euh, daal nay tontu bu baax a baax kon ñi nga xamee ni ñoo nekk ci bopp nguur gi di leen wax ne nag réew mi nu nekk réew réewum yoon la ñoom nag nan daal di respecté kon lii fi yoon daal di tëral te di leen wax bu baax a baax nag pays de droit la nekk kon nag nanu dëgg-dëgg sàmmonte ak li nga xamee ni moom mooy seen àq ak yelleef. moonte de sàmmonte nañu ak li nga xam ne moom mooy mbir mu àq ak yelleef bu ñu sukkandikoo ci Ngagne Demba Touré kàddu yooyu la fësal ci moom dajeeg taskatu xabaar yi ndax nee na daal lépp lu ñu def ci euh, daal di jëlee ci assemblée nationale du leen rek lu dul euh, euh, doxal yoon ndax nag bu ñu fàtte ne dañu ko tegoon daan ci faatu ki nga xam ne moom moo di Ndiaga Diouf loolee nag da koy topp moom Ngagne Demba kon Touré di fësal lu ni mel di ki nga xam ne moom mooy secrétaire général bu Pastef yeneen i kàddu jëmale ko ci euh, li nga xam ni moom mooy euh, poste bu ni mel ak euh, la fa dippee yëpp daal dina dénk yi lee kàddu suñu naataangoo Massou Diassé mu ñëwaat ci. bu nekk dafa am fondement mun na nag am fondement plusieurs textes mais mun na am fondement benn texte. ci loolu nag dañuy wax ni. pourquoi Barthélemy Diaz a été radié de la liste de députés. lan moo nekk ci constitution bi. constitution bi article 61. alinéa in fine moo ne maanaam alinéa bi mujj. dafa ne le membre de l' assemblée nationale. qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des parlementaires sur demande du ministre de la Justice. Article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale Nyawat, Dans le répéter même article le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée nationale sur demande du ministre de la Justice. ñu wax ci leneen soxal xibaar yi di uh, ab académie solaire bi nga xam ne nag jëwriñ gi ñu dénk wàllum njàng mu kawe mi daal di na ko tàjji yees ni ki démb ci école polytechnique bu Thiès uh, loole nag uh, bu ñu sukkandikoo ci ñoom nee nañu daal day firndeel rek taxawaayu Sénégal ci lu jëm ci wàllum solaire ak liñ ci fas yéene daal di def ci mbirum Pastef ndax nag bëgg nañu daal lu jëm ci mbirum technologie solaire gën a mën a am taxawaay ci mim réew moom moom di jëwriñ dénk wàllum njàng mu mi nag daal dina daje ak ki nga xam te ni moom mooy directeur général bu ANER ñoom ñaar ñëpp nag daal di ci yëkkati seeni ay kàddu ñu ànd ci ak moom Awa Sall. un pays qui veut se développer ne doit pas yaakaar na foog ñu wàññi wala ñu dakkal li nga xamante ni ñu ngi koy jëlee fii di ko yóbbu ci biir réew. li ñu jëlee fii di ko yóbbu bitim réew. foog ñu dakkal ko lépp rek ñu bëgg koo jëlee fii yóbbu ko bitim réew. moo xam ci wàllum mbay mi moo xam ci wàllum napp gi ak ci lu mu mënti doon. ndax loolu dafay daal di gàllankoor li nga xamante ni moo jëm ci suñu ay produits te monte de li nga xamante moom la ñuy yóbbu yëpp daanaka fii lañ koy defaree te nag mën nañu koo jël defaraat ko ba nga xamante ni nañ ci mën a gis suñu bopp moo xam ci xorom bi xorom sax nag lañ ci mën def daa bari lool ndax eau de javel bi ci lay jugee ak leneen te li ci gën a yéeme li nga xamante moom ngay jëlee a nekk te buñ ko yóbboo defar ko ba noppi buñ ko indiwaatee fii di ko jaay mën ko jaay cinquante dollars li jëm nag ci li nga xamante ni moom moo suñu ay produits locaux ngir ñu mën ko ñoŋal foofu rek ñu daal di ko protéger foofu ñu xam tamit leen la ñu bëgg tamit fan la ñu jëm ndax réew buy dox wala boog réew buñ ko bëggee doxal ñu daal di toog ci nga xamante ni moom la ñu moom muy li nga xamante ni mooy suñu ay produits am nañu lépp mën nañoo bañ a jéggaani waaye daal li ñuy jëlee fii di ko ko yóbbu bitim réew ci ay produit brut foofu ñu dakkal ko ñu xool weneen pexe woo xamante ni mën nañ ko def rek ba daal di mën defaral li nga xamante moo di produit yi fii mën koo jëfandikoo ci prix bu yomb tey nag du ñu indi benn gàllankoor

dañuy faral di jóge seen dëkk di ñëw fii di ko jël di ko yóbbuwaat seen dëkk ñoom nag nee nañu lu ni mel dañ ko fas yéene daal di dakkal ndax nag bëgg nañu lii askan wi moom mu dellu si ñoom euh, moom la ñu doon teewlu ay kàddoom euh, léegi mu doon ko faram-fàccee ci waxukaayu Aïssatou Ba kon euh, ñu daal di àddu ci leneen lu soxal xibaar yi ba léegi di euh, tey ji moo yem ak fukki fan ci weeru décembre ñu jagleel ko nag euh, bés bi nga xam ne moom lañ jox ak ak yelleefu doomu aadama ci àddina wërngal këpp di journée mondiale des droits de l'homme di ayu bés si yoo xam ne nag dañu koy yamal ñu fàttaliku ne ci atum 1948 eh, si la ñu daal di nag taxawal loole nga xam te ni moom mooy boobu lépp journée ñu daal di adopté lu jëm ci assemblée générale des nations unies ci déclaration universelle des droits de l'homme Euh, loolee nag euh, indi tey jii ñu daal di tànn ab euh, pàcc ci atum ren ji daal di ko dippee lii di suñu àq ak moom mooy suñu ëllëg te mooy it suñu waa tey loolu yëpp nag ñu def ko ngir fexe ba nit ñi fu ñu toog di gën a aar lu jëm ci seen àq ak kii di Amsatou Gano moo ci defal ab jàngat. décembre nak ñu daal di ko jagleel bu ñuy ak ak yelef doomi adama waaye nak dinañu document bi nga xamante rek ci lañu ñu xaatimoon di déclaration universelle des droits de l'homme ngir xaj ak seen daal di am ci digënté doomi adama yi jëm ci religion ak kàllaama couleur wala sax parti politique bi nga xamante rek fofu nga daal di féetee li ni mel nak mo di bi la déclaration universelle des droits de l'homme a tey jii nag fukki fan ñuy màggal 76e anniversaire ci thème bi nga rek nañ koy tënk si suñu àkk ak suñu yelleef suñu avenir tey ci li ñu mel nag moo nekk temu atum 2024 bii nag ci bu ñu sukkandikoo ci Antonio Guterres nekk secrétaire général ci mbootaayu xeet yi nag muy xam le ni bésu tey jii dinañ gën a farataal lii di àkk ak yelleefu doomu aadama nga xam ne nekk na yoon bi nga xamante ni daf ñu yombal lépp li nga xamante ni rek ñu ngi koy séentu dina taax ñu relever bépp défi waaye tamit nag àkk ak yelleefu doomi aadama nag bokk na ci luy gën a dëgëral lii di société loolu nag nekkoon ay kàddu secrétaire général Antonio Guterres bile bés nak nga xam dañ ko jagleel li di ak ak yelleefu doomu aadama nag dinañ ko célébrer ci ay anam yu bari ci melni séminaire activité yi nga xamanteni dañ koy amal ci l'école yi exposition wala marché pacifique wala sax ab débat ngir waxtané importance bi nga xamanteni rek ak ak yelleefu doomi adama amna ko ngir ku ci nekk rek dal di ko valoriser ndax dina soppi suñu gis-gis ak suñu xalaat yi nga xamanteni rek mengowul ak jamono waye tamit dina tax ñepp dal di polo ngir dal di xeexal li di ak ak yelleef doomu adama ci àdduna ñu daal di àddu ci uh, wàllum uh, tàggat yaram wax nag ci uh, lii di tey jii ci talaata ji moom mooy nag lii di ndoxteelu juróom-benneelu ay bés yu Ligue des champions yi nga xam ne nag affiche yi nga xam ne moom la ñu gën a gis moom mooy. Atlanta mi nga xam ne moo fas yéene daal di recevoir Real Madrid Bayern Leverkusen moom nag moo fas yéene daal di dem tënki ji ñi nga xam ne ñooy Inter de Milan ñu ànd ci leeral yi ak suñu naataango Idrissa Fall. yi tàggat yaram yi dañ koy tàmbale ak suñu sport national ñu gën ko xam si làmb dikkaat si li nga xam ne moom mooy combat royal bi doxoon rek si diggante Modou Lo le roi des arènes ak ki nga xam ne rek moom mooy Siteu moom mi nga xam làmb ji nga xam ne rek euh, jeexoon nag si ay coow lu bëri lool waaye nag tey nag euh, ñi nga xam ne rek moom mooy waa CNG ñoom daal mujj nañ tëj rek boobu la coow si fàttali nag euh, ki nga xam ne moom mooy Siteu ak ay ñooñam defoon nañ ab appel nag demoon rek fële nga xam ne moom mooy ca comité règlement et discipline sàkk woon fa rek ngir rek ñu mun leen jox seen i ndam waaye daal mbir moomu antuwul benn yoon ba tax ni rek ñooñu nga xam ne moom mooy CRD bi nag ñoom dañoo mujjoon rek confirmer ndam bi nga xam ne rek moom la Modou Lo amoon ca kaw Siteu waaye nag loolu taxul rek ki nga xam ne moom mooy Max Mbargane di manager si Siteu defaat ab appel bi nga xam ne rek da ko da ko jëmale rek fële nga xam ne moom mooy ca bureau exécutif bu CNG ba waaye tamit ak comité d'appel ba waaye nag mbir moomu nag ginnaaw biñ ko saytoo rek waa CNG nag génnee nañ ab bataaxal xamal ni rek ndam li ñu joxoon Modou Lo nag dañ koy firndeelaat rek ba tey ji rek joxaat ko li nga xam ne moom mooy ndamam si nag explication yi nga xam ne joxe nañ ko maanaam Siteu euh, nit ba muy daan euh, ki nga xam ne rek moom mooy Modou boobu dafa fekk ni rek moom génn na saaku yi te mbër mi daan bu fekkee dafa génn saaku yi rek mënul am ndam si ki nga xam ne moom moo nekk si biir ba tax na daal ñi nga xam ne moom mooy CNG firndeel nañ ni rek Modou Lo dafay gardewaat li nga xam ne moom mooy couronam mu nekk na roi des arènes bu ñu jugee foofu dañuy porox ndollu ñëw nga xam ne rek moom mooy ci Europe changer discipline wax si li nga xam ne moom mooy Ligue des champions ak sixième journée bi nga xam ne rek fas yéene fas yéene door tey bu 17h45 jotee kon nag ñaari match dinañ dawanto benn bi eh, nekk Dinamo Zagreb mi fas yéene dalal Celtic Ziron eh, mi nga xam ne rek dafa nekk si difficulté moom mooy fas yéene nag moom it dalal eh, ki nga xam ne rek mooy Liverpool moom mi nga xam ne rek moom moo nekk ca bopp classement ba waaye nag bu juróom-ñetti waxtu jotee si ngoon juróom-ñetti match dinañ daw si match yooyu nag am na ay match yoo xam ne rek ay final la ndax Atalanta moom mi nga xam ne rek moom moo fas yéene dalal Real Madrid nekk match boo xam ni ki nga xam ne moom mooy Real dafa am nag match boo xam ne rek impérativement daf si war a génn ak victoire ndax bu ñu xoolee tey euh, ci classement bi Real daal moom moo occupé rek euh, place bu mujj si ñu war a qualifié ca barrage rek saxtaan mu fas yéene dalal Bayern. ñu koy jaajëfal moom sa faal ci xibaaru tàggat yaram yi fa la ñuy daal di yëkkatee jotaay bi jaajëfal ñi si jàpp ba mu yem ba Abdoulaye Diallo Mangasa jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo faree ci wàllum technique bi euh, di euh, Mamour Gueye ak ki nga xamante nii moom mooy euh, Nouroudine sàll di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen ànd bu rafet ak suñu programme fii ci Global Télévision xam leen ne seen kóolte moo la ñuy sagal saa su nekk di ñaan borom bi nga xam ne dara ko mu aar ñu laax ñu fa yàq yeggul ñeen ak jàmm ba subaak jàmm incha